بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترى spiritualité religieuse bokkul ak spiritualité laïque ñom dañ koy jaawale gis nga spiritualité laïque mo jur seen yi ñoo tuddee seen secte yi ay secte yu kenn xamul ñu koy tëral kenn xamuñu fu ñu joggé programme bi ñuy jox nit ñi kenn xamul lan la ay secte yu jekki jekki di ordonné ces nit pour ñu def ay suicide collectif ah hein? di def yu kenn xamul parce que amul base bokul ak spiritualité religieuse dafa am base même spiritualité religieuse bo ca amul maître lo ci ko xam sa xasa isin nafsi war roo ñu gañ la moy li sëñ Cheikh doon wax ni di nga ñaan lele ñaan ga nangu jariñ la waye lele nga ñaan ñaan ga alak la yaq la yaxé waaw tax fokk nga xam waaw bu ko defé dafa am ben dispositif bu nga xam kenn ku ci ne ci sa volonté bopp laaju naka ngay fexe ba boole croyance boobu ak conscience boobu mu liggéeyee le résultat boo xam ni fi nga jóg fi nga toog doo fi jóg xam nga keroog ci gàmmu gi wax naa leen keroog ni léeg-léeg dafay nekk lu spontané nii léeg nga def ko sax mel ni lu ko regretté ndax boo sañoon doo dog kilifa gi keroog laaj naa ko xam nga bi mu tolloo ci rañaanu yonent bi ak bi yonent bi yeggee fa mu yegg te fekk ñoom jibril sañatuñoo dépassé foofa te yonent bi quinze minutes des ci digganteem ak audience bi ci yàlla te am lu manqué ci moom lu nga xam ne bu deful formation accélérée bi ci diggante bi ba dem ci boroomam

ci seen biir simulation ñu dugal leen ci biir miraaju yonent bi ndax seen formation accélérée waaw loolooy tax nag dafa am proverbe bu nga xam ni mag ñi nekk Tombouctou faral di wax ni mana naa mana mën naa ba la leer waaye mënuma laa may nag bët bu ko xool mën naa fexe ba la leer waaye mënuma la may nag bët bu ko xool bët ba nag ci yow laa ju waaw mais am na ku nga xam ni yi ñu war a baaxee yépp mën na la ko jox waaye lay tax nga mën na jëriñoom baax ga nag ci yow laa ju looloo tax dinañuy faral di waxtaane fu ne ñu firikat yeeg jàngalekat yeeg di wax al imaanu bil xayb alladina yuminuuna bil xayb mais ci biir al imaanu bil xayb al quran dafa tudd ñaari baat baat tudd al rajma bil xayb tuddit li ñu tudde al qadfu bil xayb ويقذفون بالغيب fële ak rajmam bil gayb waaw sunu borom ni moo waxee sa yaquluuna thalathatun rabiuhum kalbuhum wa yaquluuna xamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bil gayb wa yaquluuna sabatun thaminuhum كلبهم qul rabbi de bi iddatihim de maanaam cadre croyance conscience pour ñu xam conscience bi mu ngi servir ñaar borom pas-pas de ko war di wattu mooy polémique surtout ci lu yàlla tëral waaw ah. xam nga yàlla daf doon tudd fii asxaabul kaaf seen nombre ñaata la nit ñi di werante ñii ni ñetti lañu xaj baa leen ñeenteel ñeneen ni juróom lañu xaaj baa leen juróom benneel ñii ne juróom ñaar lañu xaj baa leen juróom ñetteel sunu borom nag di leen laaj naa delloo ko ci li mu tuddee ar rajmo bil xayba mooy événement wu asxaabul kahf Hmm? wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan bismillah ah sunu mbokk sëriñ Hamzatu Mbàkke bu sëriñ Murtada Mbàkke moo yegg si léegi ak ñu mu àndal ñu ngi ko nuyu di ko sant ci teewaay bi

te bu sacrifiés. ci ñom sacrifier Nous ñu sax ci li ñu sax fas ci seen xolit ni bu ñu doon di sacrifier du tax ñu changer seen seen ngëm ci yalla yalla loolu ri ci mom ba intervenir jaarale fi limu fi ci ay at le temps que régime bële di disparaître jom boobu ak détermination boobu ak clairvoyance boobu ku ko fi di nombre di ca werante kii ñett la kii naan ñeent xam nombre bi lan la di ñàkk koo xam lu mu leen di wàññi spéculation boobu ak polémie boobu moom la yàlla tudde régime bil ghaib parce que du seen du seen domaine jarul woon it ñu ciy tàddeel seen bopp waaw moo tax qul rabbi aalamu bi iddatihim am yàlla mi ko def moom xam na nu ñu toll yow bu ci tardel sa bopp waaw bi ci des moo di lu ñoo tudde alqadfu bil xayb maanaam dafa am ñu nga xam ni léeg-léeg dañuy dem ci seen fantasme bay jël alquran waxu yàlla di ko comparé ak waxu poète am na ñu dem ba di sikkal yonent bi di wax naan poète bu bari man-man rekk la waaw yàlla di tontu ci alquran wa ma huwa bi qawli shaa'ir di waxit wa ma allamnaahu sha'r ko defee kon la ca góor gi waxoon ni وقالوا ففجع الآخرة وقالوا ففجع الآخرة آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد كحار بدما الآخرة أدنى جنيو سخلا ونجم جيجيو ويس ويس nga dem ba àllaaxira di soga déclarer ce ngëm néna ni distance su àllaaxira sore yok bu aduna ba non la distance poésie yi ñuy comparer ak alcorane non la distance bek écart bi toll أن لهم التناوش من مكان بعد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد maanaam fa ñu doon demee di takal waxu yalla di ko comparer poésie différence poésie bi ak waxu yalla mu ngi melni ni tok ñu toog ci àllaaxira bëgg nangu seen ngëm ta fekk ngëm nga passé na na àllaaxira ba sori yo gaduna ba non le poésie sori yo waxu yalla motax toujours di comparer ce qui est comparable danay tax nit di am stabilité waaw parce que boo fekkee yu tolloowul bokkuñu cër nga bëgg leen dendalee foog nga am ko ci yokk cëram walla nga am ko ci wàññi cëram te sunu borom am na yu mu dul pardonné mooy nga jox nit cër bu mu moomul walla nga xañ nit cër bu mu moom waaw looloo tax bi muy wax alladina yuminuuna bilxayb daf ko boole ci ñaar teg ko ci philosophie bi teg ko ci méthode bi philosophie bi lu jar déglu la philosophie al iman bil ghaib principe ba ca jëkk moo di yuminuuna bi maa unzila ilayka wa maa unzila min qablik am na lu nga xam ni bu dikkee weddi la ko jiitu woon kon am na lu xew am na bu ci wàcc fa mu nekkoon lan la ci yàlla jublu xam nga li góor gi wax ci gàmmu coomoon daaw wax ni siira siira histoire sainte mu ne amul passé amul présent amul futur waxtu wu ne sarbir, servir moo tax ben yonent yi Ben genre li ñoo tuddee réaction en chaîne la commencé ci adam waaw top fi mu top noox ñew yonent par yonent yonent par yonent ku ci ñëw rekk ak façon ba mu feeñoo bu fekk ne benn réaction bi la benn chaîne bi la waaw moo tax am na loo xam ne lay tax ñu war ko gëm mooy branché ga mu branché ci ya ko jiitu woon ba nga xam ni boo lànkee bii ñàkk ya ca des waaw boo lànkee bële

ñu dàq li alquran di wax ni yu'minuna bi ba'd alkitab wa yakfuruna bi ba'd bu ni global te bokay appliquer li lay arranger ngay appliquer li lay dérangé ko appliquer ba amatul sens parce que nous ñu globaliser pour téré bi nek li loolooy tax pour bëgg nag loolu mën a servir nit ñi nga xol ci wàllu application démarche bi nga xam ni moom la yàlla jël ak yonent bi pour ñu appliquer li ci téere bi bi ci jiitu mu ni ko wa innahu la dikrun laka pour wax yonent bi ni ko njariñ bi ci alquran bala nga cee mën a jariñ keneen mbete mu la yow ba noppi bu la jariñee yow ba noppi shaxsiyan nga fexe ba mu jariñ ñi la topp wali qawmik mu nekk jamaiya boo ko appliqué ci sa bopp appliquer ko ci ñi ànd ak yow bu fa jógee nag li tundira umma alqura wa man xawlaha toppal banlie yi toppal banlie Makka ku fi yàlla yéene mu jub boo ak moom dana dégg kon iqlimiyan gannaaw bi mu nekkee fardiyan jamaiyan nek na iqlimiyan ci li tundira umma alqura wa man xawlaha mu jóge fe nak ne koy in way la dhikrun lil alamin mu internationaliser ko pour ñu xamni limu wacce wàcce wu ko pour arab wacce wu ko pour ajam yàlla daf ko wàcce pour toute l'humanité wa ba mu ci joge nak mu humaniser lépp وقت إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق كان موم التيربي خيتو نيتكم موم آه.